avertissement pour bébé Pape Fall mu mel ni premier combat spécial bala at bi nee na ko ndax pare ngeen laajte na nee na prip leen yéen a ci des bébé garga bébé Pape Fall door na bébé garga jël na tànk ba bébé garga daan na koy nengeñ bébé garga Pape Fall ñaari bébé yeta sa tey bébé Pape a ngi roqas ci suuf Bébé Garga Bébé Fab Fall Bébé Garga jàpp na ci ngemb Bébé Fab mu ngi yor pour jàpp laa ilaaha illallaah war na ko ndomba Bébé Garga war na Bébé Fab Bébé Garga war na Bébé Fab Bébé Garga lum nar lu xew luy nar laa ilaaha illallaah Bébé Garga daan na Bébé Fab Fall war ndomba daal di koy remplacer Bébé Garga daan Bébé Fab Fall combat spécial première Bébé Garga daan na Bébé Pape Fall doon nag ay supporteram jóg nañu ànd ak mbër mu daan dafa neex Adama yaay filmé lu ne Garga écurie de lutte Balla Gaye numéro 1 daan na Pape Fall écurie Yeumbeul Asegna premier combat spécial